ne def ko jege rek saa gis ko kan ra al mawla fa nga yaakaar ni moom bu ko gisoon du ko wax saxaaba yi indiwaat ko kan déggoo li ma wax ra al mawla faqat fa xayri diini te suma danaa fa tadala te xaaba xawsayn yow lu mel ni xaaba xawsayn xala xala bu ñuy teg ci fippi mu jegee ko yàlla nga mën a sa taxaw mën na kaa jege te fekk du ko gis waa kan misaal kan li ma lay jox man waa déglu ma ma jox la li ma lay jox man kan lenn laa lay jox mooy olamaaw yi ma la waxoon kan ñi neen gis nañ yàlla ñii ne gisuñu yàlla kuy gëm nag gisoo yàlla kooku sa affaire la kuy gëm na gis na yàlla kooku sa affaire la. ñu jël ko ci Moussa ñu jël ko ci Moussa yonent yàlla Moussa. waaw waaw bi mu ne may nga ma lépp waaye gis la laa bëgg. waaw fi mu mujjee. wa kallama Allahu Moussa taklima. waaw waaye nag euh, kan. rasulullahi daa bokkut ak benn loolu d'accord naa ci. ñoom mag li ko yàlla defal defalu ko keneen kan cër yi ko yàlla leen moom la kenn amul kenn njol mag doo ko tudd naan kii ak nangam parce que di tollale ne kii deful lii kii deful lii. mooy gën ci mbindeef loolu moom ñëpp xam nañ moo gën ci mbindeef. loolu ñëpp xam nañ yonte yàlla Moussa mi nga tudd ci dara ji rasul la ñu ko bindee. waa léegi nag. léegi nag kan. ku ñu bindee ci sa barke di nga ko tollu rek moom. non maanaam exemple bi ma joxe mooy ci gis yàlla bi. ma la. da ko warul tolloo lekk moom ci leen. mais Moussa lu mu am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko. mooy lan ci wax yàlla muy wax yàlla di wax. déglu ma mu dégg moom nag yàlla da ko invité ba mu yegg moom waxul mu wax de ay wax ak intermédiaire ko invité ba mu mu ne ko maa ngi yaa ngi yëkkati julli jox ko waaw. <laughs> kon bu la lu mu am amu ko njol màkka kan li mu am moom la kenn amul kan rasul li ko yàlla may moom la ko yàlla may. waaye loolu moom dama ciy taxaw gis yi gis gis gis googa man ma man maa ngi ci ulama yi ne gisu ko parce que moom même bi mu ñëwaatee ci ay explication am yëpp expliqué na lépp ba mu des gis yàlla naam jege na ko lool kan waaye waxul ne gis na ko waa kan ah kon boog téere yi peut-être yi yi ma sëgg waaw nekku ca kan yow téere yi nga sëgg waaw waaye man it li ma sëgg waaw déggoo olomaa yi wax ko mhm. muy gis da yàlla gis ku wér muy saxeex d'accord gisoo borom bi lu la wax daf ne ra al mawla bu du référence kan bu du référence man gisuma kuy référence daf ne ra al mawla faqat na oustaz loolu sax sax moo ci am gis na yàlla yàlla jox ko julli julli gi ma ko jox nag tabaarakallaahu mooy julli gi nga xam ne moom la bëgg a waxtaane nga xam ne mooy solaatu suhuri salaatu subhi salaatu isa salaatu maghrib muy juróomi julli yi nga xam ne moom la ko yàlla jox nga xam ne kan juróom fukki julli la ko yàlla jox bu ñëwee ba ci Muusa ndax bi aadama mara insa yusufin wa xanuqin suma haaruna Muusa wa abu ruhimi waaye fi mu romb Muusa heure bu ñëwee ba ci yuntu yàlla Muusa yuntu yàlla Muusa ne ko ah sama xeet yee ëppoon sa xeet de léegi nag damaa bëgg xam nga njool màkk kuy yar woon la mu ne ko damaa bëgg nga dellu ci yàlla duñ ko matal damaa bëgg nga dellu ci yàlla mu wàññi ko mu dem yàlla wàññi juróom muy ñëw a Moussa waxaat mu demaat yàlla wàññi juróom mu dem ba mu des juróom Moussa waxaat ko ne ko demal mu wàññi ko njool makk am kersa ne ko mënatuma dem yàlla ne ko nag na bàyyi xel ne juróom fukki juróomi julli yooyu ku ko julli am yoonu juróom fukki julli ci barkiir kan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nee ma sayyidina Muhammad. sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais kan kan yoon màkk mooy waa ji kan. wallaahi. rasulullah. yàlla jox ko julli. boo koy wax nag da ngay am xaal gis naa loolu. waaw man man dama toll man dama bëgg yonent bi kan. <laughs> na bien dama ko dama dama ko tolluwut ak leen. kan yoon màkk laa tolluwut ak leen. wallaahi lu am mooma. moo ñu gënal ndey. gënal ñu baay gënal ñu sëriñ gënal tout rasul moo ñu ko gënal. ndax ñun ñun ñun. lu mel jol màkk jol màkk rek. asalaamaaleykum rasul rek. léegi nag julli kan. yàlla wax nañu ne. xaafisu ala salawaati wa salaatul wusta. yàlla nee na maa ngi leen di dénk juróom fukki julli yi fonk leen ko ngeen wëttu ko. fexe leen ba temps bi lu mu xat xat xat julli kan. fexeel ba kenn fi ngay liggéeyi lu mu xat-xat jàpp julli kan kenn fexeel ba mission bi lu mu yaatu yaatu kan jàpp julli parce que inna a kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan yàlla nee na julli dafa am waxtu yoo xam ne moom laa ko jël teg ne moom la ñuy julli deux heures jullil deux heures bul bàyyi ba quinze heures wala seize heures nga julli ko donte nag da ngay nekk ci muxtaar ba dix-sept heures kenn jullil sa heure kooku nga xam ne mooy salaatul wusta ñii na timis waxtu yi tabaarakallaahu ñii ne subhu weerante bëri na ci. ñu gën a bëri nee nañ nag la takkusaan la. moom laa la wax nii naa la takkusaan nii ne xam nga ixtilaafu moom. waaw parce que dañoo ne fa fa fa la ñuy échanger yii di yéeg. mu ngi noonu mu ngi noonu te ñu doon màkk nee na salaatul wusta képp ku ko def benn sa yaram araam na safara muy salaatul wusta mm-hmm. léegi nag kan daa ci mbir na gaa xam ne daa parce que lu waral gars yi neen bii la gars yi ne bii la gars yi ne bii la bu kenn jàpp ne benn la rek ne booba la joxe yëpp ñaar la joxe yëpp ci heure yi suba la ak euh, euh, fajar gi ak euh, takkusaan la taxawul maanaam taxawuñ ne ñaar yii ak lii kan taxawul kan déggu li ma la wax waaye borom xam-xam yi dëppoo nañ mais kan déglu ma déglu ma dama ne la ñii ne leen takku ñii fajar la kan ne la ñii ne leen takkusaan la kan man a ñii ne la waxtul maghrib la bi qadara ma salaat léegi nag léegi nag kan moo tax ma ne la bul nangoo taxaw ci benn ne bii waaw loolu dégg naa ko nangoo taxaw ci benn ne bii parce que bis boo demee ba taxaw ne benn ci bii ah sa kii sa kii mën na la nax te bis boo ci taxawee nag mën nga dugg ci yeneen yoo xam ne li yàlla xam doy na moo tax boo xoolee gars yi ngëneel yi ci nekk sax duñ ko bëgg a tudd d'accord loolu jërë bàyyi xel kon nag julleen boogu ci waxtu wu lañ koy julli ndax yàlla moo ne julli maa ko tegal ay waxtu tusubaar waxtoom tàkkusaan waxtoom timis waxtoom géeye waxtoom waaye rasulullahi nee na kan ku boole ñaari julli julli ko te ba ngay boole ñaari julli di ko julli amoo benn ngant tijji nga buntu bàkkaar bu gën a rëy ci buntu bàkkaar yi ustaas nan la ñuy xamee ngantu damay ñëw ci ngànt yi waaye rasul nee kenn ku boole ñaari julli julli ko te ba ngay boole ñaari julli di ko julli amoo benn ngànt tijji nga buntu bàkkaar bu gën a ci buntu bàkkaar yi koo xam ne dafa war a bàyyi ba tàkkusaan jot mu dem fubbali jot mu ñëw toog bàyyi ba timis jàll mu doog a julli mu julli mu julli tàkkusaan julli timis mhm. kan kooku boole na ñaari julli ci sababu nafsom njool mhm. màkk nee na ku boole ñaari julli tijji nga buntu bàkkaar bu gën ci buntu bàkkaar yi man jamaa bayna salaatayni min xayri ashrin faqad ata baras min akbar kabair boole ñaari julli te ngànt taxul mais kan am na ñoo xam ne engrais rek la ñuy joxe julli. waaw engrais kese dong rek. yow daal xëy nga. boo wàccee ñëw tusubaar tàkkusaan timis gaye julli nag doo ko dem teg la sa tànk kan. mais kan loolu mooy lan. julli gi gars yi di joxe engrais nañu ko bàyyi. julli ca waxtu wala. julli ci heure ba la kan ñoo gis ñuy joxe julli ci wax julli ci ay engrais yëpp di boole ay julli di ko joxe yëpp ci lu dul ngànt seytaane moo leen mën kese léegi nag ngànt yi julli bokk na ci kan nalaw. nelaw nelaw ci ngànt yi la kan nelaw boo xam ne kan yëgoo ne julli jot na yëgoo jotul kooku ci ngànt yi la waaye nag da ngay la sa refee fajar gi. nga jub julli mais yéen sax am na ñoo xam ne réveil yeewu parce que nag kat waaw dëgg la dëgg la am na ñoo xam ne réveil yeewu yeewu leen mais nañ fexe julli rek kat ku bëgg a jug di nga jug waaw yaqin la rek ku bëgg a jug di nga jug hmm. loolu ñu bàyyi ko xel waaye dégg jàkka ji nodd naan asalaatu xayrun min an nawmi yow nga taxaw ne ko an nawmu xayrun min salaat julli moo gën nelaw fuuf. nga naan ko nelaw yi. nga ñor di mbàjj gi ne ko nelaw kiy gën julli fuuf. gën a defaru nag. <laughs> tuy xëral kan. am na ñu mën xëral kan heure boobu. c'est mm-hmm. kon nag kan heure boobu daa mel ni nag seytaane dafay ñëw ak yow. ñor di la day ñëw ah, subhanallah day ñëw di la gën a bës. Ah. nga ne deeta waay ma lay ëpp feex mi di ñëw kan. mais kan saytaane la nag nante la saytaane dafa garaaw <laughs> dafa garaaw njol màkk waxoon ne saytaane day daw ci jëmmu doomu aadama comme ni deret di dawee waaw ah. mën a di dam waaye nag saytaane moom ci boppam kan saytaane dafa am ay taxawaay yu muy taxawee ci yow day fexe ba doo julli day fexe ba doo gëm yàlla boo demee ba gëm yàlla mu ne nag dinaa fexe ba lu yàlla digal doo ko def kan fexe ba doo julli boo demee ba commencé julli mu ne dinaa fexe ba doo julli ci heure loolu waral nag boo demee bay julli rek nga gis ñoo xam ne seen yaram du diis waaye bu demee ba ba ya jàkka ji nodd rek seen yaram diis carrément. seytaane leen di bës. Ah, dafa bën bës nag moom. <laughs> mais kan seytaane dafa garaaw léegi nag bokk na ci am nawum ak mhm. nisiyam mhm. bokk na ci mooy fàtte. muy fàtte waxtu bi mooy fàtte waxtu wa. maanaam nga sëgg sa bërëbu liggéeyukaay ba fàtte ne fàtte day am kan. kan boo fàttee kooku dafa bokk ci asru yi te al asru maqbulun ngant lu ñu nangu la. léegi nag fàtte dafay am. waaye nag waxuñ kenn mu toog nag naan day fàtte ay julli. ah fàtte moom fàtte fàtte nag moom mën na am tabaarakallaahu ndax am na problème yoo xam ne kan boo ci nekkee doo xalaat julli mën nga dem ba fàtte ko dem ba affaire loolu da nga ne ah, ah julli wu ma woon nekk nangam. subhanallah wu ma woon nekk nangam. léegi nag kan tabaarakallaahu loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. parce que yooyu dafa bokk ci tabaarakallaahu. Mhm. bokk na ci nag kan ba léegi. koo xam ne dafa gis deretu réegal moom julli sax waru ko. muy muy ku gis mbaax. ku gis mbaax julli warul ko te warul fay. waaye bu dee koor nag moom day fay. bu dee jàng alquran nag. bu dee jàng alquran may nañu ko xaaj. maanaam may nañu may nañu ko mu yëpp mais may nañu ko mu jàng alquran xaaj bu dee koo xam ne dafay jàng kan. bu dee kuy jàng ak kuy jàngale kan maanaam xale bu jigéen buy jàngale kan. Mm-hmm. may nañu ko mu téye xaaj bi jàngale kan kuy jàng. may nañ ko mu téye benn xaaj jàngale ci ngiru imam Malik kat. bu fekkee nag jàngul jàngalewul. bu fekkee nag jàngul jàngalewul kan bu mu téye kaamil bi bu mu ko téye parce que koo xam ne dafa yor régal tere nañ ko mu julli kan. Mhm. tere nañ ko mu wër Kaaba mhm. yii yëpp dañ ko koo tere. léegi nag li nga xam ne nag tabaarakallaahu may nañ ko mu jàng ko ay ay yenn ay ay ayatul kursi pour muslu boppam waaw yooyu qul a'udhu bi falaq qul a'udhu bi nas yooyu mel nañ ko mu jàng ko tabarakallahu ñaan yi nga xam ne rasul joxe na ko booy xëy liggéey booy génn sa kër looy wax ak tabarakallahu boo demee bay tëdd ak njol màkk yi mu yooyu may nañ ko tabarakallahu mu yëkkati ko jàng ko léegi nag julli nag tabarakallahu kan ngant yi bu la dabul kan da war a julli bokk na ca al irma xëm xëm bokk na ca tamit nag ci yoo xam ne ngànt la xam sax dinañ ñëw ci luy luy yàq euh, njàpp ak tabaarakallaahu bokkul na ci tamit saddug jinne muy jinne sadd la nga daalu hmm, yooyu yooyu tabaarakallaahu bu fekkee nga nalaw bu dépassé euh, waxtu wa mu ngi noonu Oustaz nga nekk ci yoon ngay voyager nga nekk ci yoon di voyage bu waxtu julli jotee lii jaadu mooy ñu arrêté gars yi julli. bu fekkee ni amoo benn autorité ci oto ba. bu dee amoo benn autorité ci oto kan nga dem ba yëgg ba yëgg julli mais nag léegi kan dañoo jàngale koo xam ne dafay tukki kuy tukki salaatul musaafir ku dem bay tukki boole julli kan dañ koo jàngale. tiir yi jàngale neen koo xam ne dem na bay tukki mu wóor ko ne ko waxtu wii ak wii dina ko fa fekk mu yéexee benn bi nga xam ne moo koy fekk ci dëkk ba ni koy da koy yéexi bu ko yéexee ñoddi bee duur ko ñoddi bee taf ko ci doog dem julli ji mais kan parce que ak diinu yusu yàlla day jàppandal uh-huh. yàlla nekkul fi leen di di méttil moom newul di méttil moom daa jàppandal lépp waaye uh, yàlla dem na ba ne la bu dee da ngaa voyage sax kan nga nekk commerçant teg say bagaas nii kan uh-huh. mu wóor ne la kan boo demee fële di julli naan da ngay julli ji mën nañu yóbbu say bagage ak nangam ak nangam yàlla na la toogal foofu julli pourquoi xoolal julli mbooloo na mu mel. waaye ak wàññi julli gi. wàññi julli daa nekk farata. salaatul musaafir. waa wàññi julli bi timis bokk ci. timis kenn du ko wàññi. suba kenn du ko wàññi. suba moom daanaka. suba kenn du ko wàññi timis kenn du ko wàññi. mel nag géeye mën nga ko wàññi ñaar. Mhm. tàkkusaan ñaar. tisbaar ñaar. waaye nag dafa am sart yi waral nga wàññi kan. mooy boo voyagé rek. boo voyagé voyage boo xam ne gudd na. kan gudd na fii ak Thiès gudd na Oustaz. kan maanaam gudd koo xam ne toll na tabaarakallaahu nu ko doon araab yi di waxee ay ñeent fukki bëri dëgg tabaarakallaahu loolu nag. ba gars yi xoolee gileem ay gileem nañu doon xayma mais xam na fi ne nii moom gars yi dañuy xool ñi naan ñi naan ay 200 euh, kilomètres. déedéet yeggul 200 kilo yenn kay nee nañ nee nañ ni ma ko mën a waxee sax 200 200 kilo non àggul deux non non du kaa 200 sax am na ñoo xam ne dañoo ne bu fekkee voyage ko par exemple fii ak Thiès fii ak Thiès non fii ak Thiès non fii ak Thiès daa gàtt eh, mais ñoom loolu noonu lañ ko xaymaa yaa Oustaz non non fii ak Thiès moom daa gàtt kan kan fii ak Thiès gàtt na kan kan voyage bu gudd am na téere yoo xam ne xam nga nu ñu ko waxee hmm. mooy kan nga mën fa dem toujours ba boo fa demee tànk nga ñëw bisiwaat ci waaw te nga nga mën fa dem kan te doo mën a ñëwaat toujours ba parce que kan may nañ la bu dee da ngay sax fenn ñett fan ngay wàññi ñett fan mais bu mu yegg ñett fan de bu fi julli lu mat ñaar fukki julli may nañ la nga wàññi kan boo fa amee jabar doo wàññi kan boo fa dëkkee doo wàññi kan nekkal fii. boo demee sa dëkk comme kan dëkkal dakaar sa dëkk nga bàyyi fa sa jabar bis boo demee dootoo wàññi dëkkal Dakar sa dëkk. nga bàyyi fa sa soxna euh, sa yaay seen kër boo demee dootoo wàññi kan amal fi téeméeri at dem fa war fa am ñaari fan. kan boo demee dootoo wàññi. d'accord kan nag tabaarakallaahu mu ngi noonu muy salaatul musaafir. Mhm. xam naa nag liñ bëggoon waxtaanee ci julli. dañ koo tëb nag. le temps que j'installe le temps que j'installe euh, Adji euh, genre de comme thème bi tey lan mooy farataay njàpp ak julli. lan mooy faratee julli lan mooy faratee njàpp. waaw ñëwal ma ci njàpp gi parce que ku jàppul daanaka am na ñuy tiim am na ñuy def nii et cetera. tabaarakallaahu kan julli lu yàlla fonk la rasulullahi moo ne julli mënul am ci lu dul njàpp mais kan nag damaa bëggoon balaa ngay ñëw ci njàpp nga ñëw ci sangu farata kan. bismillah parce que nag dafa am luy jiital ba pare. doo ko dem ci leneen wax naa ko ba may départ. nee naa julli da nga ñëw ci njàpp. da nga ñëw ci sangu farata lan mooy waral sangu farata kan boo ci jugee kan nga ñëw ci njàpp doo dem ci julli yeeg bu ne nga jël ay farata maak sunna sunna yi gaa yi xam ko insha allahu taala parce que loolu moom mooy farata gi mais kan ci li ma wax rek muy julli ci waxtu ba dama cee bëggoon kii euh, saa ñëwee question yi dañ ci dikk loolu moom parce que déjà thème bi comme ni ñu defee woon thème mu sëy bi waaw kon léegi ñu ñëw ñu ñëw ci sangu farata ñëwal ma ci sangu farata ak njàpp ñu ñëw ci sangu farata kan lan mooy waral sangu farata ci laay ñëw ñan ñoo xam ne ñan ñooy nga xam ne sangu farata war na leen kan bokk na ci ki nga xam ne daf loon sëy kan boo sëyee ba pare dangay sangu farata kan gis bu dee xoolal lu toll nii nii ak lii lu toll nii bu dee moo fàddu ci ku góor ku ndaw si moo dugg lum tuuti tuuti sangu farata da war kan boo daanoo boo daanuwul boo yëgee plaisir boo ko yëgul kan da ngaa war a sangu farata léegi na kan koo xam ne sëy na ba pare yëgul plaisir wala daanuwul kan mu ne waaw sëy naa ba pare dana dem sangu ci kan bu dem sangu ba pare affaire yi doo ko génn kan téer yi neen dangay dem raxas ko dem toog parce que sangu nga ba pare dangay dem raxas rek kan tele laay waxe xam naa da ngay dem raxas ko dong ñëw toog waaye doo demaat naan da ngay sangu farata léegi nag kan loolu dafa am ñu ngi dal ñu bëri bëri ñu demaat sangu jiwaat farata dégg li gën du sanguwaat déggoo li ma la wax yi waxuñu la naan la lii la gën a lii ak nàngam dañ ne la da dem nga rafas ko jeex na sangu farata ga mat na léegi nag bokk na ci waral sangu farata kan tëdd gént mm-hmm. day waral sangu farata mm-hmm. xanaa kon jox naa la ñaar maanaam góor gu tëdd gént di seeg yooyu lay génn ci moom day waral sangu farata mm-hmm. bu kenn jug rek yëla bu kàbbaar taxaw am na xale góor yu koy def mm-hmm. da ngay day da ngay sangu farata force mm-hmm. kan bokk na ci ba léegi yuy waral sangu farata mais attends bu fekkee ni gént nga te daan woo mais kan lan mooy gént nga te daan woo ah, dégg li ma la wax ku gént di sëy am lu génn ci yow ah maanaam ku gént di sénta sëy am lu génn ci yow dangay waral sangu farata maa woon mën niiw laa wax kenn bu loolu jàllee bokk na ci waral sangu sangu farata ba léegi jigéen boo xam ne dafa gis régalam mu dagg maanaam bu noppee gis bu arrêté te jigéen nag sopp nañ ci ku gis régal heure buy fajar di jot mu ut lu mel ni carton xool ba xam affaire yi dagg na wala daggul hmm. bu arrêté mu dem sangu dem julli ci waaye bu nelaw ba suba teel. naan da ngay xool. d'accord avant waxtu julli bi di jot génneel sa katoo nga xool. d'accord loolu mooy li nga xam ne tabaarakallaahu moom la téere yi digale. d'accord léegi nag. Mhm. yow yaa xam nga da ngaa profité laaj ma luy waral sangu farata ak njàpp yombewul noonu kat faaw dañ ciy jël suñu temps. loolu moom waxtu yëpp du may mais léegi léegi léegi bàyyi ma may ma rek ma yegg luy waral sangu farata ah. beneen yoon bu ñëwee ñu jàngal sangu farata ak njàpp bokk na ci yu waral sangu farata kan. jigéen boo xam ne dafa gisoon deretu gésin mooy ko am ku jur doom. Mm-hmm. nga xam ne may nañ ko 30 jours. jigéen mën na toog 30 jours du julli kan. 30 yi nag bu yeggee rek day arrêté nag waaye nag mën na dagg ci benn fan walaw bi yow mi aw bi yow may donte benn fan la wala ñaari fan arrêté nga dem sangu ji dem julli ji. kan bokk na ci tamit yéefiir bi dugg ci diini ji ay sangu farata. Mm-hmm. néew bi. dañ koy sangu farata kenn yooyu nag mooy luy waral sangu farata mm-hmm. xataa nag mesure war yu ñu demee bay jàngale njàpp ak yooyu nga xam ne tabaarkallaahu day génn ci jëmm doomu aadama ñu ñëw ci. tabaarakallaa ko sangu farata ak yooyu nag faaw fa duñ ci jàll nag dañuy jàngal ni ñuy sangu farata. d' accord allahu taala d' accord oustaz sangu farata ndax xam naa ni euh, foog ñu yaatal ko parce que dañ ko war a yaatal. Mhm. en attendant mesdames et messieurs chers téléspectateurs nous voilà ci deuxième partie de l' comme je vous l' dit toujours y a des questions yoo xamante ne les internautes nous le posent alors euh, ki nga xamante ne moo ñuy jukki ne bi s' appelle Adji maaleykum salaam Thierno oh, maa ngi lay nuyu di nuyu oustaz bu baax di ko ziar di nuyu internautes yi ak aussi téléspectateurs yu Leeral TV amaan nañ mbégte ak contentement di ànd ak yéen ci seen biir émission yoor yoor comme niñ koy defee rek à chaque fois seen rubrique bi nga xamante ni moom la ñu dippee euh, internet internet nag di ngeen am possibilité euh, di poser seeni ay questions comme niñ koy euh, defee rek Thierno tous les jours. d'accord tous les jours oustaz gis nga léegi stylo aji bi Euh, tu vois <laughs> gis nga. ah damay góor ah, moo lay solal parce que déjà yenn saa dañuy gis ne ah nga mel ni styliste comme ça nii. si man nag moom lu la neex laay. lu la neex. waaw. saa yi dégg. non non non koo neex la aji dama lay boole oustaz. <laughs> non non aji ah, xool sax aji. Hmm. na nay baax rek nga bañ a sol la neex. nayu tànk yaa ngi moom day mu jeex <laughs> alors aji vite fait directement vous pouvez les poser oustaz dina ko amoon nañ fii ay questions Thierno comme ni ñu koy defee rek tous les jours mais balaa boobu rek ñu brosse li nga xamante ne doon ngeen ci waxtaan tout à l'heure muy le euh, kii bi 15 août bi mm. gis nañ démb li nga xamante ni jotoon na ci xew tout d'abord man damay laajte euh, Thierno 15 août lan la lan mooy signification bi ñi nga xamante ne dañ koy féete ñoom nañ ma jox euh, signification bi ak aussi ya euh, 15 août lan moo tax euh, bu ñëwee rek xel yëpp war a dem ci sali xel yëpp dem ci luye appartement def lu bon lan moo tax loolu oustaz 15 août moom moo. man question bi dama koy posé. xam naa après moom xam ko posé rek yow nga ñëw ci lan moo war a 15 août sax. moom moomuñu ko ñun. mais kan du suñu feet du suñu moom daal feetu ñu bëgg a def bàkkaar la rek. Ah. feetu yi nga xam ne ay bàkkaar dong lañ bëgg a jël. roñ ko. Mm. moom kese la. parce que feetu bu dee nii lañ koy defee nii euh, nii mooy feet bi. du ma ci xuus du ma xuus ajaas nii mooy feet. du ma ci xuus li nga xuus. ajaas <laughs> li nga wax du ma ci xuus. ajaas la euh, de toute façon ce qu'on mm-hmm. peut ce, ce qu'on peut savoir mooy. Mm-hmm. Euh, dafa am jullit bi lu mu moom ak lu mu moomul. Mm-hmm. vous avez compris. mais dama ne. ni mu ko waxee bu dee noonu la koy defee loolu moom. seetlu noonu lañ koy defee am na ñoo xamante ne église la ñuy dem la ñuy dem. vous avez ñoo xam ne dañuy dem prière am ñoo xam ne dañuy dem dans des lieux de culte. ah non non non non kan. non kan kan lu tax ñun fois. ba ma ñëw ma ñëw ci caisse bi kon. kan waxuma ñi nga xam ne dañuy dem. église ak ya caaju ñi may wax mooy ñi nga xam ne ñooy takk seen bagaas ñu ngi fi tudd sànq ba ñuy départ le motif yeeg ña caaju ñoom laay wax ak kan. <laughs> mu ne sànq bu ñuy départ. Ah, waaw ñooñu ñooñu waaw ñu ngi ba ñuy ba ñuy départ ñu nga tudd. d'accord ñu nga tudd ñu dem Salek ña caaju ak yooyu tabaarakallah. ñu mais ak aussi ñu bañ a lamlame ah. Mhm. incha allah ku jullit bi moomul 15 jours. faqat wa salaamu aleykum. en tout cas daal donc nag lu la ci fekk. yaa ko ci teg sa bopp. ñu mhm. tuub bu baax a baax. ayca s'il y a une question vite fait. on mhm. ok ñu dem rek ci première euh, question bi kii nee na oustaz ñun ñi nga xamante ni ay jigéen lañ euh, des fois dañuy gis bu ñuy mariage euh, tout la journée presque dañuy def suñu kanam yi ay kii nii maquillage est-ce que ñun boobu julli wàcc nañu journée boobu. journée boobu da ngeen koy raxas ngeen dem julli ji. waaw journée boobu heure bu waxtu jotee. da ngeen koy raxas ngeen dem julli ji. oustaz maquillage ça prend des heures. mais kan gis jigéen ñoo xam ne xew la ñuy dugg maquillage midi duñ julli tisbaar duñ julli takkusaan timis. duñ julli loolu loolu du ngànt mais kan lan mooy ngànt maquillage. kan maquillage mooy ngànt. oustaz maquillage bi ça coûte très cher et aussi ça prend du temps. tey jii da nga gis ñoo xamante ne dañuy tàmbali maquillage euh, lii nii midi. Mhm. jeexal ko 14 heures wala wala wala 10 15 heures des fois. nga mu defaat julli et cetera est-ce que kooku wàccaluñ ko bisu xewam la nag oustaz kan bisu xew ak ñàkk bisu xew dama lay bàyyi ba nga daaneel moo wax li ma bëgg a wax bisu xew ak ñàkk bi bisu xew ak xew jàmm rek sa xewu mag ak sa xewu rakk ak makiyaas bu ci mënta def kan mhm. li sariya wax mooy bu julli jotee raxasul demal sëlmu ji bàyyi lépp looy def nga dem julli ji kan. xam nga sax dégg nga mu may tudd ngant yi. waaw da ngaa dégg ma tudd ngant. ngant ngant loolu nag dégg ko ci. ngant maquillage mais ñi xam ne agaasu ñi nga xam ne dañuy maquillage laa ne ñiy bàyyi leen xel bu julli jotee ngeen arrêté maquillage dem sëlmu ji dem julli ji. parce que dafa bokk ci sartu julli yi julli ca waxtu kan jàllale naa ko sax aaya bi. wax nga dëgg inna salaata kaana ala muminina kitaaban mm. yegg li doxal rek mawquta uh-huh. loolu moom mooy farata bi. Uh-huh. bi maanaam am waxtu xat xadara. Uh-huh. waxtu yi nga xam ne dañu koo teewal. ne waxtu yu ba xasee teew point. léegi nag waxtu wi jot nga la mais moom mën nañ jàpp avant moo maquillé wu nga xam ne waxtu bi bu jotee day fekk mu yor ñaar. waaw kooku mën naa nekk mën nga jàpp ba pare. makki maquillé wu. bu waxtu julli jotee sa maquillage rek bi yàqul dara. maanaam maquillage rek julli bi. yàqul dara mais daal mooy ma du jàpp. mais kat pour lan kat. waaw ah, loolu tamit ah, xëy xëy xëy na bote la. Hmm? xale yi jigéen nag loolu la jaaree lan la. mais kat loolu loolu nag loolu nag du diine. d'accord te da ngay wax ñu naan da ngay wax ñu naan la benn fan la rek. waaw benn wax dëgg fa benn. benn benn fan la rek benn wax ñaata ñaata ñaata fan. boo tuubee yàlla baal la. alors aji. deuxième question bi euh, kii nee na est-ce que tiim mën na julli defe naa ni sax dafay méngóog ak li ma ko laaj tout à boo defee tamit maquillage. est-ce que mën nga tiim julliwaale bu fekkee tiim dafay julli. non non maquillage bi day dañ tiim ñëw. oustaz yow contre nga maquillage de. maquillage kan dafay dañ. Hmm. nga doog a tiim. te nag tiim moom mënul nekk mënoo tiim ci maquillage. te nag mënul tiim ci kaw maquillage bi kan. te beneen bi ci gën a garaaw kan. kan buy tiim say sa kii bi sa yi hmm. parce que tiim ñaar la hmm. bii ak bii mooy loxo yi hmm. ak bii léegi nag kii day laaj beneen bi ñëw génn daal dem comme ni ñu jàngalee tiim ndax ñu si ñëw mais kan comme li nga wax sànq ci jàpp it amul ci tiim na leer mooy tiim ba pare doo ko maquillage si julli jot na julli <laughs> kooku amul parce que tiim moom da tiim rek julli. julli tiim doo ko tiim ba pare ne sama tiim bi tojogul waa tiim mën nga koo téye ñaari julli. tiim takkusaan ak xanaa xanaa naafila ne mënul nekk ñaari julli mënoo julli takkusaan ne damay bàyyi ba timis rek ma ñëwaat julli. sama tiim baa ngi dox déedéet déedéet kan kenn tiim benn julli nga ci julli xanaa nga pare di naafile. muy nga pare rek enchaîner nga pare di naafile. d'accord mm-hmm. mais kat nga tiim bi tiim naa julli naa tusubaar damay bàyyi ba takkusaan sama tiim bi maa ngi moom tuuruma ndox. mais oustaz lan moo lan moo waral ñuy tiim ndox dafa dul am wala lan. waa tiim nag mooy bu ñu demee ba ndox ñàkk. boo demee ba foo xam ne amoo fa ndox kan. Mhm. bu dee Dakar fii nag moom kër goo fëgg boo sa kër bu amul ndox xoolal beneen kër. ah waaye fii jamono jamono lañ toll de fii ak jamono jeeg lu mu mënta doon kan boo génnee dox am ndox nu mu gën a gaawee kan. booy génn di am ndox. Mhm. booy génn di am ndox sikk amu ci. jàkka ji nga jeg jàkka ji la gën a jege kan boo fa demee am ndox. léegi nag kan boo nekkee ci àll bi dem ba amoo ndox kan li ñu lay wax mooy xoolal fi nga xam ne ndox yi dafay taal bu taawee bu nekkee nawet ak yu ni mel boo demee ba gisal si ndox charia daf na li tiimal kan tiim nag bokk na ca sart ya mooy suuf su laab kan nga dóor sa loxo kan may na la nga tiim mais benn waxtu kan moom lañu la wax na nga ciy julli bu ndox amul mais kan boo demee bay julli kan nga dem bay julli rek am ko yegg seeg ndox léegi sa julli gi yàqu na. maanaam boo tiimee ba pare. jàllagul nga tiim rek bay julli allahu akbar ñaar boobu ngay julli def ko naafile kan. da koy dagg da koy dagg parce que ndox te moo tax téere yi de eh, mag ñi mag ñi daan caxe bu njëkk naan mbaam nga jàpp yàpp xam nga loolu mooy lan. Hmm. mooy ñi nga xam ne dañoo ne ci tool léegi nag sa sareet ba ca mbaam ba fa lañ takk seen ndox heure julli jot ñu wër ba sonn gisuñu ko. ñu commencé julli rek mbaam mi dara ah, te waxtu bi jeexagul. ñu ne mm-hmm. ñu ah, foofu la. ndox ma ah, jàpp bi eh, tim bi yàqu na kon tim bi yàqu na rek moom mu ngi noonu. ndox moom bu feeñee te waxtu bi jeexagul moom. Mm-hmm. tim bi day yàqu incha allah. Adji d' accord ci biir julli oustaz euh, nga nekk di julli euh, nga dem ba ci biir euh, sentir ne juum nga ci biir julli bi yow nan ngay def pour rectifier waat sa biir. ban façon ju xam nga julli. dafa am ay juum. Mhm. dafa am sujudu sëhwi dafa bëri. comme ni ma ko jàngalee woon sànq. nee naa la mën nga juum ci kàbbar ak mën a juum ci kàbbar yi ci des. mën nga juum ci jàng saar. jàng faatiha kese. mën nga juum ci yeelu beeg biral ba. kan mën nga juum ci sujjuut. kan mën nga juum ci rukon kan ban ju ban juum ajaas. comme tey euh, par exemple ngay julli dem ba ci biir sa xel dem feneen euh, parce que loolu doon nañ ci wax nga fàtte ni yow. Euh, am na saar boo waroon a tari wala nga fàtte ni danga waroon a wala ñaata ràq moo la dese. waaw maanaam koo xam ne dafay julli kan maanaam kuy julli muy dem bay sikki sàkk ci li defe naa ci li nga bëgg wax mhm. ba xam julleem mat na wala matut mhm. muy xalaat ba xam benn laa dese mhm. wala ñaar laa dese wala ñett laa dese xam nga kooku lu ko téere digga mooy na indi lu xel lu doy xelam ataa bi moom li mu jàpp rek na indi la dal xelam maanaam bu jàppee na ci benn laa nekk wala wala ci ñaar benn moo des wala ñaar sariya daf naa indil ñaar boo paree nga sujjóot baada salaam baada salaam ndax xam nga mooy leen kan mooy gannaaw boo sujjóotee ba sëlmal nii nga sujjóot ñaari sujjóot nga sujjóot ñaari sujjóot siggi boo siggee nag tabaarakallaahu nga toog sëlmalaat mu jeex tàkk loolu moom mooy taxawaay bi waaye nag li am moom julli moom bu dee da nga yaakaar ba xam bii nii moo ma dese wala ñaar moom ma dese ñett moo ma dese wala benn moo ma dese charia daf naan la indil la gën a bëri nga yaakaar ne moo la dese atta bi ma shakka bu dee da nga yaakaar ñaar a des wala benn charia daf naan la indil ñaari rakk ba pare nga sujjoot ba'da salaam waaye doo ñëw rek indi benn noonu tabaarakallaahu d'accord loolu moom mooy taxawaay maanaam ba'da salaam mooy boo manqué le ba'da salaam mooy boo ëppalee la salaam mooy boo wàññee. bee foog nga sëlmal ba noppi bee balaa ngaa sëlmal. xabla salaam avant ngay sëlmal ngay sujjóot ñaari sujjóot. kan ngay sujjóot. gannaaw bi nga euh, xabla salaam ni ñu ko defee mooy sujjóot nga julli nga sujjóot nga taaye nga ba pare. nga dem sujjóot ñaari sujjóot ñëwaat taaye sëlmal. xabla salaam mooy boobu jar na taaye wala da ngay sëlmal. da ngay taaye taaye am ñoo xam ne du ñu taaye. téere yi nag dañu diggale taaye dañu diggale nga taayewaat parce que ñii ñu ci bëri dañ naan taayal day dem mu yóbbaal mais ngir imam Malik gii dañ la digal kan nga bii waaye lu ci gën a bari ñoom par exemple bu fekkee def nañ xabla salaam wala baala salaam bu ñu ko defee waaw kan loolu am na mais man li nga xam ne man moom laa fekk sama <laughs> sama référence non non non kan moom laay jàngale mooy islam charme islam kii dafa sëgg ci téere yi kii sëgg waaw moom mais man li ma gën la genre li ma gis lu gën a bari muy ñoo xamante ne bu ñu defee xabla salaam ba noppi jarul ñuy taaye wat dañuy dañuy su dañuy sujjóot rek. kan rek salaamaaleykum. salaamaaleykum kan lu ñu jàng nag ñu suñu téere yi surtout refrain imam Malik li ñu digal mooy kan. dangay ngay taaye sëlmal. ñu jàng imaam nga taaye ñu jàng imaam Shafi. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. <laughs> alors vite fait si vous ñu terminer rek ak dernière question bi oustaz koo xamante ne aussi dafa nekk di jiite comme imaam nga dem ba ci biir julli bi sentir ne sa njàpp toj na nooy def. <laughs> waaw imaam boo xam ne dafay jiite kenn mu dem ba yëg ne njàppam toj na. kenn kooku li ko war mooy dootul yegg li julli gi day dagg. mais ni muy daggee nag. Mhm. ni muy daggee nag kan day ñor di kenn moom mu ñëw yegg li julli mu dem yoon moo xam imam jàppam daa moo xam imam day bore ji di ci bakkan bi muy bore kooku day dégaase wu mu woo keneen mu ñëw jiitu ko mhm. mu woo keneen mu ñëw yeggalil mbooloo mi day arrière rek xëcc kenn day day pousse rek xëcc kenn moom mu ñëw yegg mhm. mais nag kan kooku moom bu ñëwee fu imaam tolloon fa lay mottalee. bu bu fekkee mënul saar bu imaam nekkoon nag. bu mënul saar bu nekkoon mu jël beneen saar kan. Hmm. bu ah, fekkoon maanaam bu fekkoon imaam sujjootoon na ba pare. yëguloo ne dagan na. Hmm. ngay jàng alif laam miim zaalikal kitaab laa rayba ba mu yàgg nga jël prononcer bi naa si. waaw hmm. moo tax nag bu poussé moom mën na ñot di keneen mu ñëw taxaw kan kooku kan bu taxawee moom mu xool la muy jàng rek moom mu jàng ko bu mokkul la imaam nekk. xam nga am na ñoo xam ne nag kan. dañuy dox seen jamono ba mu neex ñu ñëw di xëccoo jumaa ji naan hmm. fii maa fi taxaw. naan ñooy loolu moom loolu <laughs> moom fii maa fi taxaw dafa am benn jumaa prochaine fois prochaine fois on va parler. parce que kan dafa am benn jumaa Paa Mbay. Hmm. Paa Mbay daal moom dox na addunaam ba mu neex ne toll ci def ko la ba mu neex mu ne nag léegi nag jot na ma yow ci jàkk ji kan di ñëw di julli di ñëw di noor daka li xam mais Paa Mbay benn suur imam dem ba mu yàgg rek njàppam tot. bañ jàppoon tojee rek Pambay place boobu ku fa mus sa taxaw day taxaw na la puusal fii sam place la. Mhm. imam njàppoon toj rek mu ne nii jàpp ci mbagu Pambay Pambay ñoom bi Pambay dër mu ñod di ñod di Pambay mu ñod di ñod di Pambay mu ñod di waat Pambay ne ko man a Pambay xanaa nag ma jaawale fii sama place la xoolal keneen waay. <laughs> mais xam nga Pambay moomu. allah daa dox jamono. subhanallah. mu ne ko mën a yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla musal ci loolu moom moom Pape Mbaye nag il faut que xam ko <laughs> macha allah alors je pense que àgg nañ ci cappaandaw ga et si vous avez euh, votre dernier mot pour aujourd'hui Euh, Adja Astouf. d' accord di amoon mbégte ak contentement rek juste di leen jox conseil sama mbokk euh, jeunes yi ay xale lañ ay ndaw lañ donc war nañu xoolaat suñu bopp bu baax a baax surtout nag fi nga xamante ni jamono jamono ji toll na fa léegi euh, Thierno xamatuñu sax ban dëkk la ñu nekk tellement que yow da ngay tiit des fois nag dañuy wax ci parents yi la mais parent yi yar nañ seen doom yi fi ñu leen war a yare mhm. mais dafa mel ni ñun ñoo amatul kersa te bu ñu demee nag kersa dañ ci nit. defe naa ni euh, deseetoo dara da ngay gis góor ñi léegi dañuy nelaw ba ay 11h 12h ñu yeewu ñu naan leen ay DG yow DG fan nga <laughs> man loolu rek laay laajte. waaw mais ba wax na wax na dëgg kan. Mhm. da ngay gis ñoo xam ne dañuy tubaab tubaab lu ñu moomul tubaab. nan da ngay tubaab tubaab lu loo moomul. Mhm. naan ah man damay nelaw ba midi. écoutons man nelaw ba deux tubaab tubaab di loo moomul. man dama nelaw guddi damay nelaw ba mais boo nelawul guddi bu julli jotee julli nga tëddaat kan. Ousseyn tàggatal ah, man de ah mais mais mais. si jërëjëf alors Adji est ce que est ce que wala da ngay tàggatoo. d' en tout cas daal nañ xoolaat suñu bopp rek juste nag benn euh, parenthèse la woon. di mhm. leen jox dig daje rek ba demee incha allah. ba demee incha euh, ba demee kon ñu beesaat tabarakallah waxtu julli bi ndax julli gi moom faaw tabaarakallaahu ñu beesaat ko yi ci des daa bëree bëri bëri bëri yooyu faaw ñu xam ko ndax charia mooy loo xam ne moom dañ koy bàyyi xel surtout lu jëm sax si julli tabaarakallaahu maa ngi nuyu Mouhamed Diop Caaja yi di sama soppe borom deer maa ngi koy nuyu baax tabarakallah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salaam chaque fois comme ni ñu koy waxee c'était plaisir di nuyu ami ak njabootam yépp ñoom Awa ñoom Aïcha ñoom Mariam ak Fatima doomam joote maa ngi koy bu baax a baax waaye ngeen xam ne euh, chaque fois comme ça dañ leen di jox dig daje demain mais aussi on va encore une fois yeggali li nga xamante ne mooy thème parce que y a beaucoup de choses à dire vous bien certains